alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya ayyuha allazina amanu ittaqu llaha xaqa tuqaatih wa la tamuutunna illa wa antum muslimun gannaaw loolu mbokk yi sunu xutba tey mi ngi jëm ci loo xam ne sunu borom yàlla moo ñu ko nettali ci benn jaamam boo xam ne mi ngi toog ak doomam di ko yar ci yarub lislaam borom bi netti lettili ñu ko ngir ñu mën a koo jël ab royukaay kooku mi ngi tuddoon luqmaan lu bari ci ñiy nettali histoire démb dañ ne sax nit ku ñuul la woon doonte ne loolu itteewul li itteeloon mooy sunu borom yàlla subhanahu yëkkati woon na ay darajaam ci xam-xam ba lenn ci boroom xam-xam yi sax di wax yonent la doonte ne lu ëpp ci ñoom dañ ne du woon yonent nit ku baax la woon ku yàlla baaxe woon la amma sunu boroom nee na mayoon na ko xam-xam xam-xam boo xam ne moom la ñuy tuddee xikma te mooy xereñe te xikma boobu mooy lan mooy xam lu baax boole def lu baax ay lu ne nga teg ko fa mu war a tege loolu rek moom mooy xikma ki nga xam ne dajale na xam-xam bu dul jeex waaye jëfewu ko kon kenn du wax ni moom dafa ànd ak xikma loolu nag sunu boroom na ko ay luqmaan na sant sa boroom te xam ne kuy sant boppam la santal ca kuy weddi yàlla dafa woom la ci ay jaamam mbokk sant yàlla mooy lan sant yàlla mooy mboolim xéewal yi la yàlla defal nga xool fan la ko yàlla bëgg nga delloo ko foofu loolu rek moom mooy sant yàlla sunu borom yàlla subhanahu wa taala bi nga xamee ne nii wax ne lii mu ne moom nag moo woom na ci jaam yi bu ko kenn jaamul woon it yàqul ci nguram gi dara borom boobu dañoo gis ne mi ngi ñuy nettali Luqmaan mi ngi toog ak doomam ja di wax moom ci ay bind yoo xamee ne nii képp koo xam ne yarkat nga ca yow bàyyi ak yaay yaa jiitu ci loolu war ngaa bàyyi xel bind luqmaan yooyu ana ban bind la ko jëkko jàngal mooy ay sama doom fexeel ba bul bokkaale mukk ak sa boroom ndax bokkaale day tooñ gu rëy la mbokk loolu mooy la jiitu li ñuy war a dugal ci la nga xam ne mooy xolu sunu njaboot mooy ñu xam ne yàlla lañu war a jaamu waruñu ko bokkaale dara ndax loolu moo taxoon yàlla bind leen indi leen ci kaw suuf sunu borom mu ne bind ma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma te jaamu googu du mana mat lu dul dañ cay wéetal yàlla subhanahu wa taala waaye du mën a matit lu dul day fekk da nga koo xam borom bi subhanahu wa taala képp ko xam ne nii jaamunu ko bokkaaliwu ko dara dana yaatal sa dënn waaye yaatal sa dund am naa képp kuy bokkaale ak boromam même bu doon président des États-Unis sunu borom yàlla subhanahu wa taala dana xatal dënnam waaye dana xatal li nga xam ne mooy ak dundam comme ni ko yàlla nettalee ci aaya yu dul jeex gannaaw loolu mbokk jurit sunu borom gannaaw ba mu jëlee ak xam ca ak xam ci jaam yi mooy ñu jaamu ko bañ koo bokkaaleeg dara képp koo xam ne def nga ko danga nga mas a tabbi aljanna képp koo xam ne defoo ko yàlla araamal na ci yow aljanna gannaaw loolu la ko wax ne ñun dey dénk nañ doomu aadama ci way juróom ak njekk gannaaw yàlla kan la gannaaw yàlla mooy say way jur ndax waa wajur yooyu ñoom ñooy sabab bi tax nga ñëw ci kaw suuf doonte ne yàlla moom moo sabab sabab ba mooy boroom sabab yu mag ya waaye waa jur yooyu ñuy sabab loolee naka la ñuy taxawee njaboot yéen ñépp xam ngeen ne way jur heure bu amee doom xelam di denc ci moom ba baa muy faatu même buñ ma géré ma xalaat kañ la ñuy takk jabar kañ lañuy ngénte seen projet adduna yi ma leen ci jàppale ba da ngay gis ne waajur woo baax wa di yanquba alayhi salaam bam bam demee di faatu te amoon na lépp téeméeri at mi ngi wax ak njabootam nga ko waroon nga xam ne ñii am nañ juróom-ñetti fukk ñii juróom-ñaar fukk mu leen di wax lu ngeen di jaamu sama gannaaw kon waajur day ànd ak njabootam daa'iman waaye nag sunu borom fàttali xale bi ndax kat bàyyi moom li muy def yaa koy gis bàyyi moo la tabaxal kër gi mooy fay facture yi mooy joxe dépense bi waaw yaay nag lan laa siq ak moom sunu borom di la nala yaay mii nag xamal ne moo la ëmboon lu jege juróom-ñeenti weer yaay mii moo la doon nàmpal loo xam ne mat na ñaari at te lépp coono la ci kaw coono kon yow mi nga xam ne da am xel ngalawaay sant ma man yàlla ci jaamu ma bañ maa bokkaaleeg dara waaye it santal say wayjur ci la nga xamee ne mooy dab la nga xamee ne mooy seen bànneex mbokk lii dañuy gis ne suna borom yàlla subhanahu wa taala bi mu koy wax ci luqmaan luqmaan mi ngi jàngal doomam ja ci lan moo dina njëkk dañ koy fay say jur defoon nañ ci yow njekk fayal njekk googu waaye gannaaw itamit waajur yi ngal la waaye képp ku loo mas a defal njekk bu ko fay lu ñaaw xoolal lu jekk ne lam la defaloon nga fayee ko loolu loolu moo tax ba xale bi nga xam ne xale bu baax la mooy que jëkk a respecté ay waajuram ka jëkk a def ci ñoom njekk waaye mbokk koy respecté wul ay juram ki faalewul ay juram képp ko muy tàpp tàppalit xamal ne intérêt dong la yaakaar ci yow waaye abadan du koo xam ne nii daf lay nekk di la teral loolu ñu bàyyi ci xel suñu gisee la nga xame ne nii mooy waajur yooyu borom bi it subhaanahu wa taala daa di tëral daa dina nag bu dee dañ laa bëgg a xiirtal ci nga bokkaane ma ngal la waaye bu leen topp ci loolu waaye teewul na nga nekk ak ñoom ci njëkk muy wane ne nekkate kat keneen ku dul yàlla subhaanahu wa taala bala ñu ko topp dañuy xool ma ndax liñ koy toppe du mooy yàlla su dee na mooy yàlla la su dee na sa baay la wala sa yaay la wala sa jëkkër la wala général d'armée wala directeur service la wala ku mën a doon képp ku lay digal loo xam ne mooy yàlla la wala mu lay tere loo xam ne farata la sunu mu ne fala tutihuma bu leen topp ca loolu waaye ñàkk leen a toppit wo wonewul ne da nga leen war a même bu doon ay yéeféer la sunu borom mu ne nekk la ñoom ci àdduna ci njëkk toppal seen ndigal dabal seen bànneex allahuma la ñu nekk ci kéeféer ak shirk moom fexeel ba bu ca bokk ak ñoom fexeel ba bu leen ca wuyu léegi nag lan mooy pexe pexe bi sunu borom ne toppal ma yoonu ka nga xam ne daa jëng jëm ci man toppal ma yoon mbokk kooku mooy ab sëriñ nañ xam ne sëriñ mënut a ñàkk waaye ni nga xam ne noonu la ko sénégalais yi déggee ak li ëpp ci doomu aadama yi sànku mooy sëriñ mooy sama yaakaar àllaaxira koo xam ne buñ demee mooy dajale mbooloom ne yàlla ñi saa mbooloo la tàbbalil aljanna mbokk déedéet ab sëriñ mooy ki lay won aw yoon wala jëme ca yàlla sunu borom waxul nga topp sëriñ bi sax daf ne wattabi sabil toppal yoonu sëriñ bi su ko defee sëriñ boobee lam nekkoon bu dee ne yoon la bu dëppoog sunna mu jàngal la ko nga topp ko dana tabbi ajjana tabbalaa leen la ajjana ndax yéen a bokkoon yoon ba moo tax sunu borom ne ci man ngeen di dellu si ma xabaara leen li ngeen doon jëf yéen ñëpp loolu it kon mi ngi noonu mbokk du mën na ñàkk ku nekk ci ñun na xool kan mooy royukaayam ci diine na doon góor la na doon jigéen la ca bañ a def sa roy ko royukaay ñoo xam ne xëy na say maam sax dajewuñu ak ñoom nga jàpp ne kooku mooy sama royukaay abadan mbokk doomu aadama royukaayam mooy alxuraan ak sunna am naa ña ko cay dimbali mooy ña nga xam ne ñooy dund di ko teete ci yoonu alxuraan ak sunna boobu comme ni ko Luqmaan waxee doomam ji daaje ne ko wattabi sabila man anaaba ilayya amma bu ñu xoolee ñooñu nga xam ne dañu ngi leen yàlla mu ne def leen topp képp ku jeng ci yàlla du digle lu dul lu baax du tere lu dul lu bon amma dénkaane ñetteel bi mu ne koy sama doom xamal ne gis nga loo mën a def ci lu baax même bu tolloon ne pepp dugub wala loo mën a def ci lu bon même bu tolloon ne pepp dugub nga tëju ci biir montagne def ko wala nga naaw ci ko asamaan def ko wala nga duggoon ci biir suuf def ko du tee yàlla subhanahu wa taala dana ko indi yowmal qiyaama fay la ko loolu kon mi ngi boole doom ji ak yàlla te mooy mbokk julit yàlla rek lay ragal la nga xamee ne mooy lu waay yàlla lay sàmm nekkul koo xam ne day ragal ay état wala ragal la nga xam ne ni mooy ay loi yi nga xam ne civique la yu deme noonu abadan la nga xam ne mooy itteem dëgg lu mu mën a doon mbaar lii nekk na loo xam ne ngërëmal yàlla mi ngi ci mbaa lii terab yàlla nekku ci foo mën nekk ci kaw suuf nga xam ne sa borom yàlla moom mi ngi lay fuglu di la xool te it mi ngi lay enregistré yowmal qiyaama dana la fay amma dénkaane ñeente ñeenteel bi mu ko ay sama doom taxawalal julli taxawalal julli mbokk julli gu la ko taxawloo taxawloo na la lislaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na mooy pilier bi tey lislaam doomu aadama yi dañu am ci diine la am ci julli ku la gën a fonk julli moo la gën a rafet lislaam ku la gën a sàgg ne julli moo la gën a sàgg ne leneen lu dul lislaam julli mooy li nga xam ne moom la yàlla faratal ci kaw asamaan julli mooy li nga xam ne kenn amul ngant bàyyi ko aj màkka mën nga bañ a aj màkka ngir ngant koor naka noonu zakat naka noonu amma julli fii ak yaa ngi sa xel même bu dee da ngaa tëdd lalu hôpital ak opération bu sa xel nekk ci yow bu julli jotee da ngaa war a julli moo tax mu ne ko taxawal julli te julli mooy farataya ak la nga xam ne moom la àndal ci lépp ci ay naafila mbokk julli googu boo bëggee yor sa njaboot xiirtal leen ci sunu borom yàlla nee na julli day day tere ay ñaawteef day tere nit ki dem ci lu bon inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar wala zikrullahi akbar julli googu mooy dox sa digganteeg seytaan heure boo kàbbaree màggal yàlla musul ci seytaan jàng alquran jéggulu yàlla su juutal ko toroxlul yàlla jalla wa ala loolee da loole gis ne day doon loo xam ne lu lay aar sa bakkan ci seytaan di am ci yow pexe gannaaw loolu itamit julli googu da mën a boole doomu aadama yi xoolal toogaay bii ngeen toog lan moo ko waral yéen góor jigéen mag ak ndaw ñëpp bàyyi seeni kër ci heure bi lan moo ko waral muy julli ana ñaata téeméeri téeméeri ñoo xamante ci jàkka ji te gannaaw yàlla jàkka ji doo nga tax ñu xamante bu dul woon ak jàkka ji mën na nañoo dëkk plus de cinquante ans kenn du xam sa moroom kon ngeen gis loolu lépp naka la julli def ci doomu aadama moo tax mu ne koy sama doom fexeel ba taxawal la nga xam ne mooy julli waaye juróomeelu santaane bi mu ne ko ay sama doom del diglu lu baax cay teru lu bon mbokk diglu lu baax ci teru lu bon danañu yóbbu ci ne bala ngaa diglu lu baax da nga jàng luy lu baax bala ngaa teru lu bon da nga jàng lu mooy lu bon kon fokk nga jëm koo jàng ñaareel bi maadaama yaa ngi jóg ba kay digal nit ñi mooy laa chaq yow da nga ko def maadaama lu bon yaa ngi koy tere nit ñi kon loolu laa chaq ne da nga ko bàyyi waaye loolu itamit daf daf koy yóbbu ci doomu aadama bañ di xalaatal boppam dong waaye muy xalaatal boppam di xalaatal la nga xam ne moom mooy société bi muy dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñu wax ni kenn ci yéen bu gisee lu bon na jéem mu denc loxoom su dee loxoom mënu ko dindi na jéem mu denc làmmiñam su dee làmmiñam mënu ko dindi na jéem mu dindi ko au moins ci xolom mu naqari ko ba ñépp xam ne da ko naqari te mooy sunu borom mi ngi ñu waxit ne moytu leen fitna boo xam ne bu ñëwee du yem ca gaayo tooñ kese looloo tax buñ bëggee société bi jàmm am fi buñ bëggee ak dal am fi fokk dañuy diglu lu baax teru lu bon amaa buñ demee ba kenn digleetul lu baax kenn tereetul lu bon yàlla buy indi fitna ñépp la koy boole amaa la nga xam ne mooy dénkaane juróom benneel bi mu lu koy sama doom na nga fexe ba bul nekk di jëngal sa kanam ci nit ñi bari leen a faale waaye bul nekk di dox ci kaw suuf di rëy rëylu mbokk bañ a faali nit ñi ngiree sa alal ja nga am wala pal ga nga am tax nga xeeb leen loolee ci li yàlla jalla wa ala gën a bañ la bokk bal ca la borom xel yi gën a bañ la bokk muy doomu aadama boo xam ne dafay rëy rëylu ku mel noonu dana dog ak mbokkam ku mel noonu dana dog ak xaritam dana dogi dëkkandoom dana doon koo xam ne kuy indi fitna ca la nga xam ne mooy société ba mu nekk gannaaw loolu itamit mu nekku ay sama doom fexeel ba na nga doon koo xamee ne nii booy dox ci kaw suuf nga diggu doomu mbokk diggu doomu boobu nañ xam ne dox boobu mandarga rek la ca Luqmaan tudd ko waaye mboolem mbir lu doomu aadama yi def xamal ne la la ci yàlla gën a bëgg mooy diggu doomu mboolem relation yi ngay jëflanteeg nit ñi ngal la waaye bu ca jéggi dayoo waaye bu ca gàttallu la nga xam ne dafa aju sag lekk la ca gën mooy la ca diggu doomu la nga xam ne mooy aju say nelaw la ca gën mooy ni digg dóomu heure booy dépense sa njaboot heure booy sarxe heure booy def lu baax la ca gën moom mooy digg dóomu sunu boroom bëggul yàqkat sunu borom bëggul koo xam ne dafa nay lépp loo xam ne nii sa wàllu dund la nga la lay xamal ne la ca gën mooy la nga xam ne moo ci diggu dóomu loo xam ne gàttal lu amu ca waaye ak ëppal amu ca lii it mbokk da ngay gis ne bi nga xamee ne Luqmaan wax na ko doomam joojee bokk na la nga xamee ni ni mooy dénkaaneem bu mujj ba mu ko dénkaane mooy ay sama doom fexeel ba sa kaddu nga di ko wàññi xamal na li yàlla gën a bañ moom mooy la nga xam ne mooy kaddu mbaam ay yéen mbokk julit doomu aadama dafa sunu borom daa bëgg ci moom mu doon koo xam ne day dal doon ko modeste bañ a nekk koo xam ne foo toll yaa ngi yuuxu foo toll sa baat ñépp dégg ko loolee donte ne ñun africain yàlla subhanahu wa taala dañ cee nattu bala am na ñoo xam ne sax la ñuy bàkkoo ci seen xeet mooy kilifa bu nekkee ca penc ma waa këram dañoo war a dégg baatam ndax ku nekk ca penc ma dégguñu sa baat loolu daa wane na yow daal doo jàmbaar doo góor waaye loolu mbokk maam maami cedde yoo ko def amaal islaam daf ñoo santoon ñuy wàcce suñuy baat ba képp koy waxal kooku moo koy dégg ka ca yoonum nekkul yoonum déggu ca waaye da ngay gis ne occidentaux yi bokk na li ñuy xase africains yi ca wax dëgg yàlla yi dëgg la mooy bruit bi nga xam ne africain da koo attan dañ da koo nekkee mooy fu ñu nekk ñaar ak ñett dañu foog ne kon bi ñoom dong ñoo fi nekk mbokk loolu suñu borom bëggul loolu waaye suñu borom gën na koo bañ nag heure boo xam ne da ngaa mer di yuuxu ka nga xam ne danga ko koo di wax loo xam ne nii yàlla subhanahu wa taala bëgg ko loolu mooy comme ni nga xam ne ni mbaam di te mooy ŋaax-ŋaax boo xam ne nii ay mën na dem kilomètre loolu sunu borom képp koo xam ne dalaa méngaleeg mbaam jukko boobu bépp jullit war naa fexe moytu ko mbokk lii bu ñu xoolee ay tegtal la yoo xam ne jaam bu baax bii di luqmaan sunu borom yàlla tagg na ko ko waaye mbokk yàlla waxu ko pour léeb de abadan yàlla da koo jagleel aw saar daal di ci tegtal yarkat yi ca nañ ko waxe woon ñett ca jiitu mooy la nga xam ne mooy waajur yi loolu muy wane na war nañoo di toog ak sunu njaboot war nañoo toog ak sunu njaboot waaye it ñu fexe ba xam ne lañuy ñuy jëkk ci ñoom mooy nañ defar seen pas-pas te loolu bokk na danger bi gën a garaaw tey agresseurs yi gën a bon tey nekkul ñi nekk ci mbedd mi gàddu ay jaas yi waaye ñi yor rajo beeg télévision yi di jël xale yi di leen gurguru di leen gëmloo keneen ku dul yàlla di leen yaakaarloo keneen ku dul yàlla di leen bàyyiloo julli ak la ci aju loolu nga la waay yar leen ci seenu njaboot gannaaw loolu fexe ba njaboot gi am jukko yu kawe yu tedd comme niñ ko jànge léegi waaye it fexe ba jàngal xale bi ne ko yow benn jaam nga ci société bi doonal kuy indi njëriñ ci société di diglu lu baax di teru lu bon waaye fegal sa ay ci société bi ci la nga xamee ne nii moom mooy ay wi nekk ci yow fexeel ba bu ko woon kenn waaye tamit xamal ne ab société bu bëggee réussir fokk dañuy digg doomu nañu moytu lépp loo xam ne ak yàq la loolee da ngay gis ne ay mbir la yoo xam ne diine l'islam mooy diine bu complet comme la nga xamee ne benn yahud daje woon na ak Salman Salman al Farisi di ko bëgg a sabote naan ko waa Salman dégg naa seen yonent bi day jàngal na leen lu nekk ba jàngal leen sax nu ngeen di demee douche Salman na ko wallahi jàngal nañu ba jàngal ñu lu ñuy demee douche ca moo ko demal tey nga dajeeg benn militaire nga laaj ko règlement intérieur de l'armée ak li ñuy discipliné militaire buy dem douche lu ñuy def naan ah loolu moom bokku ci. mi ngi noonu demal ci société bu la neex nga laaj direct ña nekk ca employé ya waa règlement intérieur société bi kuy dem douche lu ñuy def dañ naan la déedéet amma l'islam daf ñoo jàngal xatta nu ñuy demee douche na nga jiital sa tànku càmmooñ ngalawaay na nga wax bismillah fexeel ba bul jublu penku fexeel ba bul laaboos la nga xam ne mooy sa ndeyjoor ila axiri ila axiri loolu kon negam l'islam sàgganewul booy dugg douche l'islam sàgganewul marché ba islam sàgganewul palais de justice islam sàgganewul kër ya islam sàgganewul jàkka ya islam sàgganewul sëy ya islam dara loolu nag mbokku jurit sa doom da nga ko war a préparer ci loolu xamal ko loolu bu demee ba loolu sax ci xolam fu mu mën a nekk ci kaw suuf dëkku yéeféer ya wala dëkku naafiq ya day doon koo xam ne nii day mën a défendre boppam bal day mën a doon koo xam ne day mën a yéwénal ndax la nga xamee ne nii jiitu na ci moom mbokk li ñu doon wax fan lañ ko jëlee ñi ko jëlee ci téerab yàlla bi loolu it muy wañe ne da doon góor ak jigéen nga la way lu ñuy jàng téerab yàlla bi jàng boo xam ne jàngu yii mu lay doon bañ a doon jàngu page page rek ubbi ay page kese wala di xool xissa yi ci nekk mu neex la sa xol nga koy jàng wala baat bu neex ba nga xamee moom nga àndal wala keneen di àndal waaye xamal ne sunu borom nee ne téere bi wàcce naa ko yi dabbaru ayaati da ko wàcce ngir ñu settantal ay ayaam settantal aaya boobu it benn résultat dong la mën a am bu yàlla gërëm mooy aaya yi lenn rek lay woote dalay woote ne la gëmal lii nga gëm ko defal li nga def ko bàyyil lii nga bàyyi ko bu dee ne yow sa njàngum alquran jurul ñetti résultat yi da ngay xam ne yaa ngi mel ne que yàlla di wax ka masalil ximaari yaxmilu asfara mi ngi mel na mbaam boo xam ne dafa gàddu ay téere yal na yàlla wërsëgal ñu xikma ba ma yoon luqmaan yal na yàlla boole ñu ci ñuy yar comme na luqmaan doon yare waaye yal na yàlla yaral ñu suñu njaboot teg leen ci wasiya luqmaan yal na yàlla may ñu la nga xam ne ni muy mujj gu rafet may ñu suñu xol sedd ci njaboot gi may ñu la nga xam ne dund goo xam ne dund goo tey la musal ñu ci ñu koy bokkaale yal na yàlla rafetal suñuy jukko rafetal suñu digganteeg jaamu yàlla ñu bokk ci ñu leen di jëriñ ca bañ leen a lor yal na yàlla defal ñu la nga xam ne mooy àjjana muy nekk sunu wàccuwaay mu boole ñu faak sunu njaboot ak njabooti bépp julit allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati ama yasifuna wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin